suñu suñu suñu xarit koo xamante ni màgg la woon Pikine bu mag Pikine yëpp xam ko lépp lu mu am Pikine lu koy andi Pikine xam ko di si def xam-xamam di si defal dooleem lépp lu andi subaax ngoon guddi ak bëccëg nit ku baax la woon te serviable am ak nit jàmm am ak nit am nag population Pikine yëpp jàmm vraiment gaañu bi bett nañu te ni mu gaañu aussi métti na parce que mënoon na ñàkk parce que lii dara jaru ko fi affaire àdduna jaru ko fi. pouvoir ak teraanga yàlla moo koy joxe dañ ci war ko sóor li li xew suñu kanam suñu kanam dañu éviter affaire yu mel nii mën nañ ko éviter ñu ngi ñaan yàlla tamit gaa yi di ko éviter li dara jaru ko fi moom mi dem nag ku baaxoon la Pikine yàlla na ko yàlla yërëm te xaaral ko àjjana njabootam bi ci bàyyi aussi yàlla na yàlla na yàlla loxo si ñoom ñu ngi koy ñaan yàlla ko yàlla yërëm